nit ñi d'abord nañu am yar ci seen bopp bu la say waajur yarul wax dëgg yàlla boo demee ba am 18 ans yow war nga mën a xàmmee li baax ak li bon ensuite dañuy wax toujours ne nañu delluwaat ci communauté ndax ñun ay société yu communautaire lañu maanaam bu ñu bëggee dugg ci bopp sa bopp du sotti ñun communauté suñu cosaan la suñu aada la polygamie suñu cosaan la suñu aadala dafa bokk ci ñun njaboot gu bari dafa bokk ci ñun ñun loolu mooy suñuy valeur yërmande jullite dimbalante dafa bokk ci suñuy valeur ñun loolu ñoo ko moom bu ñu ko boddi di wuti leneen ak ñuy recommander état bi aussi mu jàppale famille yi nga xam ne seen doole tollul seen gannaaw du papa ji lay jàppale du yaay ji lay jàppale mais njaboot gi sew gi nga xam ne dañu war a faju dañu war a dem jàngi école ñu lay jàppale